asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa tey ji nag ñu am yéene pour waxtaan ak ñu yéen lenn ci yi nga xam ni macha allah ñu bëri xamee nañu ko muy jaaru yi xamante ni dafa baax pour cat dafa baax pour làmmiñ day ubbi wërsëg xaalis mën a ñëw bu baax tey toog ci loxo jaaro bu bula bii moom mooy def loolu dafa ànd ak ay ñaan lépp luy def def bu bon rek bu loo ko nit defoon sax day dal fii waaye day dellu ci ki ko def macha allah jaaro bi am na itam bu rouge pour stabilité ci seen wàllu sëy am na ñoo xamante ni amaguñu jëkkër yàlla dimbali leen ñu sëy ak ka ñu bëgg am na góor ñi nga xamante ni dañuy bëgg am soxna waaye lu ñu dajale pour takk soxna rek day yàq wala boog mënuñu am dara pour takk soxna mel na rab moo leen topp wala seytaane moo leen topp wala ka ñu bëgg sax kooku xoolu leen jaaro bi nag du jaaro kese ndax dafa am lu mu àndal ay ñaan bain bi ngeen gis nekk ci papier ali mooy bi lépp lu ñu xam ci alxuraan ak xasaaytu sëñ Tuubaa moo ne ci biir incha allahu rabbi képp ku ko jëfandikoo sa buntu wërsëg dana ubbeeku ci kàttan yàlla képp ku ñu soxla nag mën nañu woo 77 169 45 45 77 169 45 45